am sant ci ñëw di fekke bis bu mag bi nga xam ni bis bu rëy ci biir Sénégal liñ fiy tekki bis bi nga xam ni ku ci yàlla boole daanaka bàyyilu la dara di am mbégte nag di ñëw di fi représenté ak ñii ñu àndal le président Idrissa Seck nga xam ni kenn du nattable ni taalibe yu murit la kenn du nattable digganteem ak famille murit ñi nga xam ni ñoo nekk Sénégal ak bitim ak bépp famille religieuse bu fi nekk bis bi nag di témoigner relation fraternelle relation de talibé ak Serigne bu exister tamit ci Serigne Touba ak ki nga xam ni mooy Serigne euh, Mame Thierno nga xam ni kon ci seen relation ci li ñu taxawalee lislaam jàngat bi rëy mën na ci génn ci képp kuy taalibe ci képp kuy sénégalais di profité ci njariñu bis bi ci li ñu digle ci bis bi pour suñu borom yokk jàmm ci biir Sénégal yokk fi naataange di ñaan suñu borom tamit mu guddal fan ak wér kii nga xam ni mooy xalif général des mourides mu mun yeggale mission ci suñu sëriñ sëriñ Touba bëggee